الحمد لله نيجي سانتي الله بو باخ جولي شنت صلى الله عليه وسلم نيجي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جيم سي جلدني جوليت ني جيم نيجي مبولمي طالبي نيغا خامني نيغي حضره مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه سندقل الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم ياسف نيغي نوي نيب دي يغلى رك ديسيون بيغا خامني موم لا سيرين بي جيل سي غامو طيبه ييغا خامني نورمالمون موغي ورونا نيك لو 27 مارس لو 27 فيفري بي ني ci la waroon a nekk waaye comme mbas mi ni ngeen ko xamee wàññeekuwut yoon yoni ñaareelam bi tim dafa gëna tassaro limi lor gëna te l'islam nek diine jo xam ne diine juy sàmmanteeg bakkan la ak luy muccilo bakkan yi te yalla tabaaraku taala ala ohne bu len ray sen bop lépp loo xam ne ni aju ci wàlli mbas ak niñ ko war a dawee dëgg-dëgg defe naa ne message boobu tey jii war naa àgg ci kenn ku nekk ci senegal ndax yonent bi sallallahu alayhi moo jàngale ne ku dégg mbas ci dëkk bu fa dem ku nekk ci dëkk tim mbas nekk fa bu fa génn pour wàllu ko keneen bi nga xamee ne nag tey jii gis nañ mbas mi lim gën a mën a tasaaroo mooy mbooloo yi te gouvernement bi ci njiital euh, président Macky Sall jël ay matukaay pour tënk nit ñi ay tënk-tënk yoo xam ne nii dana tax mbas mi ni muy tasaarooye gën a wàññeeku ni muy loree gën a wàññeeku ci kaw loolu la xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass gisee ne gàmm gi nga xam ne ñi ngi ko waroon a def ci Taïba le 27 février muy gàmm Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu sëriñ bi nee na gàmm gi aj nañ ko ba jamono maye ko ba jamono méngoog daje yooyu loolu nag mu def mu koy def pour sàmmanteeg lépp loo xam ne ni jàmmi réew mu ci la nekk jàmmi askan wi ci la nekk teg ko tim ci ay bind yu wér ci njàngaleeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleeb alquran njàngaleeg Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ak tim jàppalanteeg njiiti réewam président Macky Sall ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi jàppalanteeg moom ci xeex mbas mi ndax moom sëriñ bi lim gëm toujours dafay wax ne réew mi du ne président rek lañ ko war a bàyyee moom kenn ku nekk yaa war a bay sa waar boobaa nag lépp nekk ci jàmm dëgg ñu ngi dimbali ko ñaan yàlla ñu ngi dimbali ko uh, sarax waaye nañ dimbali ko tim bépp matukaay yi nga xam ne yàlla teg na ko ci suñ loxo ñu jël ko mooy sàmmanteeg uh, lépp li nga xam ne uh, docteur yi ñu ngi koy digale muy espace yi nga xam ne nit ñi war nañ di ko jël jël masque yi di jël gel yi waaye tim moytandiku bépp daje boo xam ne nii rawatina ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ci état d'urgence lañ nekk te loolu yëpp du pour njëriñal benn nit waaye pour njëriñal umma bi yëpp la pour njëriñal bi yëpp la euh, pour tim jàngal nit ñi ñi xam dëgg-dëgg mbas mi euh, naka la toll ci lor ndax tey àddina yëpp amuñ ci benn pexe buñ ci am lu may espace yi euh, barrières yi jël masque yi di séentu vaccin yi nga xam ne ñi ngi koy tudd te dëkk yu bëri sax fi mu ne nii mënaguñ ko am ci kaw loolu la sëriñ bi waxee ne fomu nañ gàmmu gi ba beneen jëmmi jamono te ñu ngi mu ngi digal tim mboolem muqaddam yi nga xam ne ñu ngi aju ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu ñi sàmmanteeg loi yooyu ñi sàmmanteeg euh, matukaay yi nga xam ne euh, gouvernement bi jël na ko lépp pour xeex mbas mi ñi ànd ak ñoom ci xeex mbas mi bañ delluwaat ci Sénégal gi nga xam ne nii Sénégal yi jàmm la ñu nekk delluwaat di nuyoo delluwaat di doqante delluwaat di gàmm delluwaat di daje ci jàmm waaye te mu ngi dénk ñi nga xam ne ah baaxoo woon nañ ñëpp baaxoo woon ko di ci def ay ñaan ñaan yi doon def kaamil yi ñu doon def ñi koy jàng ci kër yi ak booleeg sàmmanteeg rek tënku-tënku yi nga xam ne loolu la affaire bi laaj ndax tey feebar amul dara luñ ci gën a yaakaar lu may saraxe ak ñaan kon loolu dañ ko continuer pour ñaanal euh, euh, réew mi ñaanal askan bi ñaanal président ñaanal docteur yi nga xam ne ñi ngi euh, fanaan guddeeg bëccëg nelawatuñ amatuñ benn jot yàlla may leen tawfiq waaye ñaanal ñi nga xam ne tim yàlla moom na leen ci mbas mi yàlla jox leen yooni ku shahid ci yoon yàlla ñi nga xam ne ñi ngi tëdd yàlla saafara leen ñi tëddut yàlla musal leen ci mbas mi ci gàttal daal loolu mooy message bi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko doon jàllale mu jëm ci mboolee mi euh, xeet bi jëm ci mboolee mi taalibe yi rawatina ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ñu ngi nuyu suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Mouhamina mu ngi toog ak ñun di président Ansaru Diin di euh, mudir Mahad Alhaaji Abdoulaye di nuyu ay doomam Cheikh ak Hassan ak ñi nga xam ne ñu ngi fi tew ñëpp di ñaan yàlla yàlla boole ñu wattu wattul ñu suñu réew wattu mbooleem alamul islami asalaamaaleykum wa